si euh, leneen ba tey mën faa dindi seen émission li nga xam le truc de matinale sur les antennes de Sénégal 5 TV partagez likez parvenez live bi nga xam ne dañoo ko daal jotagul ñu fa seen daal di war a mën a topp si li nga xam nekk mu wi si lu mu gën a yaatoo exactement alors euh, parlons d'élection mais tout d'abord commençons par ki nga xam nekk Barthélémy Diaz il a été promu tête de liste bu li nga xam nekk mu di sàmm euh, devant Bougane Gueye Dany Khalifa Sall Thierno Bocoum Anta et tant d'autres et tant d'autres afin aussi pur bu euh, ki nga xam nekk moo di moussa Moustapha Sy Barthélemy Diaz ñu daal di koy jiital aussi ñu daal jiital ki nga xam nekk moo Ousmane Sonko Pastef day naan tout le temps que ni xex bi léegi dafa wacc si génie yi xeex bi avant dafa wacc si euh, génération bi exactement. Mm-hmm. Khalifa bokkol génération ak Ousmane Sonko est-ce que le choix de barthélémy Diaz à la tête justement de sam Kàddu du VAR tu y attendais exactement oui euh, xam nga bëgg politique c'est normal c'est tout à fait normal la coalition VAR sàmm sa kàddu mën naa jël mën jël Barthélemy Diaz teg à la tête de la liste c'est normal xam nga c'est un jeu électoral un jeu politique maintenant maintenant am na ay sénégalais am sénégalais li ñuy fàtte. Barthélémy Diaz a été condamné définitivement sur l'affaire Ndiaga Diouf. Non, déedéet déedéet attention. Ah, xew. attention Damane. mais Barth nouveau. Diaz Damane. ne. Diaz il a été condamné définitivement sur l'affaire Ndiaga Diouf. te mu voté. Tel loolu. ministre de ministre de la justice. bu sàkkuwee ñu génnee ko ci list électorale yi bind le ministre de l' mën na am. Hmm. oui jamono ay sata Tall Sall bi nekkoon jamono boobu ministre de de de la justice bu bindoon jamono boobu le ministre de l' intérieur jamono boobu ne ko dama bëgg nga génnee ma Barthélemy Dias ci tour liste député yi donc Barthélemy da doon ñàkk mandat de député am mais ay Aïssata sal Tall Sall moo ko deful moo ko deful. en sachant que Barthélémy Diaz a été condamné définitivement ci Ndiaga maintenant si tax wax ni Barthélémy Diaz à la tête de liste de VAR le combat aura lieu mon d'accord les gens aimeraient que le combat est lié maintenant si Barthélémy Diaz parce que ñun conseil constitutionnel oui oui oui xama xama xama Barthélémy xama conseil constitutionnel xama conseil constitutionnel Mom hmm. la ñëpp di constitutionnel ce ma nee la ñëpp di xaar parce que mom moo am sañ-sañ valider candidature jambour wala invalider candidature jambour conseil constitutionnel moo am habilité bob te le conseil constitutionnel a tout toutes les informations ni que Barthélémy Diaz a été condamné sur l'affaire Ndiaga Diouf. mais Erfan Erfan attends Erfan. non si mais Erfan qu'on repose exactement le ce débat Barthélémy Diaz il a été condamné. exactement oui oui conscient de cela. oui. est-ce que euh, amuñu lu leer que ni Barth il n'a pas peur de justement euh, c'est son, son, son éligibilité d'où mu de di voter exactement en France élection parce que il a aussi Sonko est euh, éligible parce que Sonko tamit euh, gis nga li nga xamni da itam àtti na ko diggante moom ak Mame Mbaye Niang te teewul ni euh, voté na exactement élection yi mm-hmm. Ousmane Sonko c'est pas la même chose ma ñëw fa c'est pas fallo il faut que ñu expliquer ko Sénégalais parce que yo yaa ngi jaawale ñaari affaire ñi mandaté Barthélémy Diaz mu nek à la tête de leur liste ma ñëw ma ñëw dama ne ñu mandaté pour Barthélemy Diaz nek à la tête de leur liste dara ou poulet ñoom ñoo la xam ni que Barthélemy Diaz son sort le sort de barthélémy Diaz repose entre les mains de ces nouvelles autorités ñom ñoo gëna a xam lolu dama né je répète pour sénégalais comprendre dama né ñi mandaté barthélémy Diaz pour nek pour mu nek à la tête de leur liste xam nañu que le sort de Barthélémy Barthélemy Diaz repose entre les mains des nouvelles autorités. parce que la parce que l'actuel ministre de la justice Ousmane Diagne même na le ministre de l'intérieur pour ñu gagner Barthélemy ci ci les parce que dañ ko condamner définitivement l'affaire Ndiaga Diouf qui est une affaire criminelle chambre criminelle moko dan, moko condamné définitivement est-ce que comprendre alors Ousmane Sonko n'a pas été condamné sur une affaire criminelle l'affaire Aïdissar Kizina gis nga Konti Max demee contumace tey Ismaïla Fall la Danuna, bu maintenant Ousmane Sonko a été condamné sur l'affaire de diffamation te l'affaire de diffamation bi c'est purement politique ñoom ñoo ne. lu tax Sonko nekkul candidat. ñoom ñoo ne. lu tax Sonko nekkul candidat selon le conseil constitutionnel. alors ce conseil constitutionnel dafa ne. allez-y demoon Ousmane Sonko mënul nekk candidat. parce que dañ ko daan. lu ëpp six mois. oui on se rappelle. on se rappelle dañ ko daan lu ëpp six mois. ci l'affaire bu ko opposé ak Mame Mbaye Niang. lu changé entre temps. maintenant maintenant. Hmm. bu ñu paree ci loolu. Hmm. ñoom ci seen bopp ñoom ñoo dem voter une loi d'amnistie pour effacer tous les faits politiques faut que comprendre il faut que expliquer la pour nga comprendre l'affaire pour euh, de diffamation diffamation de qui qui de donc de diffamation, l'affaire de Sonko du de diffamation, l'affaire wax ni l'affaire de opposé de Sonko et donc diffamation, Sonko dara empêcher ko pour mu tête de liste mais par contre aussi l'affaire Amnesty, Amnesty ou <laughs> Diouf Ndiaga Diouf ak ak Barthélémy parce que c'est purement criminel li lay wax ni après nga dem laaj ko Ousmane Sonko meun na bok ci liste électorale mais Barthélémy Dias dañuy xaar dañuy ne dañuy xaar conseil constitutionnel parce que man mënuma ko wax selon l'article L29 du code électoral mon moo exclure Barthélémy Dias ci les listes électorales L29 L29 du code électoral l'article L29 du code électoral nous guenné Barthélémy Dias ci les listes électorales li ma lay wax ni japp ko la moo tax la comme ñun du ñun valider wala invalider candidature dañuy xaar conseil constitutionnel est-ce que xam nga un autre candidat peut faire un recours qui le choix de Barthélémy jazz à la tête de de la liste de de Var Sam un candidat à la loi? bu bokk élection le ministre de la justice. da da dama ne il s'agit de il s'agit de droit il s'agit de droit. il faut nous leeral C'est quand le ministre de la justice génne ko celui-ci dama ne il faut préciser Dédé. Dédé. dama ne jamono bii conseil constitutionnel moom mën na mën na sur boppam si loolu. dama ne conseil constitutionnel mën invalider la candidature de Barthélémy Diaz parce que il a été condamné définitivement Le lay wax ni te aussi nee naa un autre candidat bu bokk ci élection yi mën def recours contre le choix de Barthélémy à la tête de liste de, cette coalition là un autre candidat à la c'est par exemple tay dafa melni ni Arfan tay mu nekk mouvement mu am mouvement wala coalition bu dem ci les élections législatives ma def un recours au niveau du conseil constitutionnel ma ne man d'accord ma ci Barthélémy Dias il doit pas être il doit pas figurer ci la liste de la la liste de de cette coalition là ma conseil constitutionnel man d'accord ma ci

dama ne wa Macky Sall ñoo créé seen jeu ñom ñoo lal ce jeu bo paré ñom ñoo ki si ce jeu. ñom ñoo avons daanu. ce ñoo élaborer ce jeu programmer ko bo paré nga daanu ci biir jeu mois d'une amende de 200 200 millions pour mu baña ce élection présidentielle d'accord beaucoup yow yaa ñëwaat rétropédalé yow de yow ba léegi yow Macky Sall yow yaa rétropédalé ñoo ne leen da ngay créer une loi d'amnistie bu effacer tous les crimes politiques wala tous les faits politiques waxuma sax crime politique les faits politiques ñoom ñoo ne dañoo ñëwaat ci seen seen rétropédalé créer une loi d'amnistie bu effacer tous les faits politiques mu daal di yóbbaale loolu ci Ousmane Sonko. ñoo créé jeu ba ci jeu <laughs> c'est ça la réalité donc mënoo blâmé Ousmane Sonko. donc ki ngay Sall. Ah, donc on s'en rend compte que ni dem Arfan que ni il faut ñu effacer loi d'amnésie. donc ñom li la ñu effacé Ousmane Sonko allait tomber ses élections. dama né créé une loi d'amnésie lu tax ñoom ñu créé une loi d'amnistie mais la question c'est la question exactement. la question yow mi tok ni ñeen abrogé loi d'amnistie bi. bien sûr abrogé parce que baaxul contre Sonko si élection yi. mais mais est ce que Ousmane Sonko laaj na dafa laaj loi d'amnistie je crois que laaju ko do créer une loi d'amnistie pour son propre intérêt déedéet loi d'amnistie bu fekkee dafa arrangé sénégalais yépp dans ce cas kenn du ci coow fallu hmm. bu fekkee loi d'amnistie bi dafa arrangé woon sénégalais yépp hmm. kenn du ci coow mais loi d'amnistie boo xamante ne benn parti la la arrangé sénégalais gisuñu seen bopp moo tax ma ne la loi d'amnistie bi bu y yow nga créé malin malin et demi nga créé ce jeu ba pare daanuwaat ci ce jeu c'est pas important moi t'as la candidature Barthélémy Diaz bu ñuy coow nii ba léegi qui est en suspense ki yogul il faut que conseil constitutionnel valide ko ba pare et aussi nañu ñaan le ministre de la justice Ousmane Diagne. je crois que du daanu ci ay affaire politique yooyu mais nañ ko ñaan mu bañ a séjour

donc Barthélemy Diaz mon na dem élection. alors l'air na par rapport à euh, pàcc ki n'a xam nekk moo di Diaz euh, si élection donc nag Barth moom moo exactement tête de liste pour euh, avoir Sam Kadoui devant ñoom Bougane Gueye et consort Khalifa Sal. alors nous allons di ñëw si leneen sans plus tarder fond du côté de la régie Arfan Ousmane Sonko tête de liste pour Pastef jamono ji n'an